Ocav Mbacké moo àndoon ak président zone bi Mbacké yi ñu ñëwoon ci stade bi doon pour une deuxième fois bi ñu fi jógee léegi am na weer ñu ñëwoon di xoolaat euh, travaux yi fan la toll. bi ñu fi jógee un mois ak léegi am na benn soppeeku buñ ci gis soppeeku bi mooy lan gis nañ ñuy teg euh, pelouse bi ñu ngi ciy teg xeer bu ñuul à part loolu ñu gisaat ñu ne ñu ngi defar charpente bi. bi war a tegu si kaw mais ba tey ñun gis nañ ne liggéey bi dafa yeex constat biñ ciy def mooy menuisier métallique yi nekk si ginnaaw ñett ñoo fa nekk di liggéey te biñ fi jógee léegi un mois kon ñoom wa ta njortu nañ ne dinañ fi defaat un mois parce que interroger nañ leen donc ci li ñu wax dinañ fi defaat un mois loolu rek deux mois la donc te stade bi 18 mois la waroon a durée maximum actuellement nii waxatuñ 18 mois ñu ngi jëm kon dañuy li ñuy wax mooy ñu accélérer travaux yi mu pare mais nekkuñu fi ndax travaux yi mi ngi avancé avancé wul en réalité parce que bu avancé woon tey clé lañ ñuy laaj ñu wala ñu ñëw tey la ñuy inaugurer stade bi kon travaux yi véritablement képp kuy Mbàkke war na xam ne avancé wul loolu lañ ci seetlu. moo tax ñuy demander encore une fois état mu gën a yokk euh, loxoom mu waxak ak euh, entrepreneur bi parce que gis nañ ne dix-huit mois romb nañ ko ñi ngi jëm ci deux ans donc kon état bi war na sommer euh, entrepreneur bi pour que véritablement mu gaaw ci li muy def parce que il faudrait que état bi wane volonté am ci estatu Mbacké volonté boobu la ñëpp jàpp ne nag. état bi da ko manqué kon ministre des sports war na yokk aussi bon ay jéego ci ci stade bi déggoon nañ si si si yenn nit ñi ñu wax ne bon pelouse bi dinañ ko teg le 5 tey la 15 donc ça veut dire que teguñu ko kon ñu ngi jëmaat si feek un mois wala feek ay jours yu bari donc loolu lañ ci constaté actuellement. pour wax ci mais par rapport ak ñoom seen i déclaration rek la ñuy jàpp. parce que dégg nañ ministre bi ci ñenn ñi ko jege ñu wax ne le 5 dina ñëw Mbàkke teg pelouse bi le 5 romb nañ kon ñu ngi jëmaa ci yeneen jour biñ ñëwee liñ fi fekk mooy xeer bu ñuul bii ñu jàkkaarloo di ko gis moom lañ ci teg encore une fois li ñuy wax mooy véritablement Mbàkke war na romb fii ci wàllu stade bi li tax ñu yàq yàkkamte stade bi pare mooy Mbàkke amuñ fu fuñ footballé Mbacké actuellement nii depuis 2019 amuñ fu ñu footballé te as bul bul jàpp ne football bi acteurs yi football rek la sport léegi activité économique la muy Mbacké muy feneen xoolal Bombali exemple la dañoo am benn international am stade bu baax am leneen mais sur le plan économique stade ba la muy la muy dugal ci dëkk ba donc kenn mënu ko wax Mbàkke tey bu amoon stade sur le plan économique ñëpp xam ne ni secteur yëpp lay laal la yëmul ci benn secteur muy secteur sport bi rek de mais day laal secteur yëpp ci lii ñu gis nii ci travaux yi à vrai dire amuñ si yaakaar ne dinañ football nawetaan Mbàkke ci stade bii li ñu fas yéene def bon am nañ suñu instance dinañ ci toog waxtaan instance yi dinañ toog waxtaan lan moo possible pour que ñu def ko loo ci mën a xamit lu ñu mën a def pour que Mbàkke du ñu croiser les bras toog bañ a football tamit moo ñu gënal parce que Mbàkke euh, sport bi aussi nekkul ne boo euh, loo xam ne nii aussi buñ amul stade boo bu fonctionnel comme li ñu koy wax ñu bañ ko def ça dépend ci acteurs yi nga xam ne nii aussi ak euh, contexte bi ñu nekk ndax war nañoo mën a football war a waruñoo mën a football. xam nga maire autorité politique la. ci wàllam j'en sais quelque chose parce que xam nañ ne am na lum ci wax am na lum ci jëf rencontré nañ ko bi ñu génnee keroog bi ñu mujjee fii rencontré nañ après xam nañ ne am na lum si waxtaan ak yenn autorité pour que gars ñu gën a yokk seen loxo mais nag au niveau central timit dañu jàpp ne foofu la affaire bi tagee parce que ñoom ñoo ñooy tabax estatu Mbàkke malgre que maire mi ngi ciy wax mais tabaxul stade bi état bi mooy tabax stade bi comme état bi mooy tabax stade bi ñoom la ñuy interpeller directement parce que ñoom ñoo war a xam ne bu entrepreneur bi def lu ñu bëgg war nañ fa yabal ay corps de contrôle ñu xool lu xew su su su fekkee ne corps de contrôle yi mënuñ koo yabal ñu wax ak entrepreneur pour ko mu accélérer loxoom stade bi pare parce que stade Mbacké dafa war a nekk suñu ginnaaw waaye warut nekk te suñu kanam ñu ciy wax de de de chaque jour de A à Z ñu ciy wax kañ lay pare kañ lay pare kañ lay pare loolu dañoo jàpp ne dafa war a jeex ci at mii.